asalaamaaleykum mbokk yi teel a ajjuma juróom-ñetti fan ci jumaada saani yi muy weeru maamu koor di juróom-benneelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ñaar ci weeru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett juróom-ñetti fan bokkul ci lim bi fàtte lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla na nga leeral sama dënn yàlla na nga jàpp jàppandal samay mbir. rabbi israh li sadri wa yassir li amri rabbi israh li sadri wa yassir li amri xaddisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dem ci ab gisaanekat laaj ko am mbir deefu ko nangul ak julli diirub ñeent fukki guddi xaddis bi muslim génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man ataa arraafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salaatu arbaina layla axrajahu muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi 6 heures 9 juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñeenti simili tisba 13 heures 31 benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak benn tàkkusaan 16 heures ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn timis 18 heures juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn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 yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin